ni ma ko bëgg waxee tey jii dafa am fu ñu nekkoon ak ku ñu nekkaloon muy Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli bàyyam boole ma ak moom ma taxawoo ko en tant que jeune très parce que jàng naa ba ma waree jàng ba ma paree samay samay waajur teg nañ ma ci yoon wañ ma war a teg ma ànd ak moom di ko jàppale ba biñ ko mu tee intermédiaire bu ne def naa ko ak kilifa diine yi. ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci présidence ngir ñu man koo may liberté ma gis ne bi mu génnee nag defuma ko waxuma ko ma gis ne daf ma tuutal te man ku ma tuutal jot ma ndax man duma xale kenn di leen wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a nekkee fii garage daaru jëm garabi Cheikh ibrahim fii fépp li ko wër man Abibou Mbacké Dione incha allah dañuy rejoindre Benno Bokk Yaakaar ànd ko ak l'honorable député Sadaga pour l'élection législative prochaine incha allah li ñu bëgg le 31 incha allah comme ni ko suñu président des jeunes waxee duñ la garantir 100 pour cent ah mais nag danañ def lu ñu man ba fii gars yi duñ fi am xob. sama politique yëpp dama ko jëmale ci social liggéey ci Serigne Touba di may nit ñu ndox bu ngeen xoolee da ngeen ko gis mais cinq ans rek la Cheikh du def assemblée def fa ay tooxi doona yu bari ba dégg ngeen coow yu ko topp bañ tëj ko moo soo su ñuy wax Sonko ñooyam man mosuma dugg ci yooyu te du ma ko def mukk ci àddina kon nag maa ngi lay tàllal loxo di dalal sexeel di dalal xelu jigéen ñi dinaa leen jàppale sama kemtu lay kàttan mais nag fa suma yéene sama digganteeg yéen mu doon politique boo xam ne événement rek lay doon mooy élection yi dama bëgg bu jeexee nag ñu ànd continuer fu ngeen ma gis jox ma cër respecté ma fu ma leen gis jox leen cër respecté leen kon Habibou li nga wax dégg naa ko jigéen ñi boole naa leen ak madam Seck wax naa ko ko am nañ ay financement yu ñu am mais li taxoon ñu xawoon koo arrêté mooy élection yi ñu nekk soo jëlee ay financement di ko jox nit day jàpp ne loo ko may la te loolu pour liggéey la nit kiy liggéey ñu jàppale ko muy dem di liggéey di dem di ñëw mooy li gën bu ñu dikkee élection nag événement la ñu def suñu événement te dem. dama leen waxoon li sëñ Abdou Lahad waxoon comme sëriñ bi loolu defal na ko te sëriñ bi xamal na ñëpp ne boole ne ko ak sëñ Touba mais nañu waxante dëgg bu ko booleeg sëñ Touba ñu nit murid yi ñu dëkk Touba war nañ ko wan ne ko ñu nit topp nañ la ci li nga wax. mais mënuñu chaque élection ay jafe-jafe di fi am loolu dañ ko war a weesu weesule moo waral man mi di wax ak yéen nekkuma ci liste député yi nekkuma ci mais dama passé sama bopp ci Sénégal sëñ Mountakha wax ne sa Macky Sall dénk naa la sëñ Touba mu ñi dem ci élection nekkuma ci ay liste ak ak député ni mu neexee déglu leen bu baax li may wax ak député ni mu neex ñu génne sama tur ci liste yi mën na ngoo dem campagne yi sëñ Mountakha tax que dama jàppu ne. cër boobu ñu war a may mun Mountakha mooy jàppale ko ba Macky Sall am na te loolu mun te ñàkk te Sénégal dafa war a passé boo nekkul ci ay liste di xeex buñ la defee ministre ngay jëlee la fa ngay xeex buñ la defee directeur jëlee la fa ngay xeex buñ la defee député jëlee nga fa xeex loolu as gor du ko def parce que bañ la fay def daa am ñu bàyyi. ñew fi saa dag nak après contane nañ ci lol te ñu ngi koy tam gërëm bu baaka baax parce que yàgguñ ko gis mais gis nañu touti limu def fi kee buñ ko sax nak way suñ sañon mu dolil ni surtout ma nak jigen Sénégal euh, jigenu jàmber yi dañoo son son bi nga xamné suñu mënona a am kuñu dimbali mom ah day baax ci ñu lol lol lol mais euh, ci walum kuura ci walum financier ci walum E, e, ndox ci wàllu même même même war nañu am li nga xam ne mooy salle salle bi xam ne salle conférence la ñu ngi kii war nañu am tam ay école yi nga xam ne dañoo normal carrément suñu doom yi di ci jàng euh, am nañu lu bari bari bari li nga xam ne war nañ ko am ci ndimbal e ñun nag suñu waxee Macky Sall moom jarut muy sax sonn ci leneen Macky Sall puus mu takk puus mu dem waaw ñun moom Macky Sall ñun Macky di leen wax ne ñu ngi leen di xaar ngeen jàppale président Macky Sall parce que seen mbokk la ñun suñu xarit la mais yeen seen mbokk la waru leen a kenn diko diko diko ko di ko bañe di neewal doole te ngeen bañ a déglu kenn ci mom jambar la mi ngi liggéey réew mi li ngeen wax dégg nañ ko fi ci jambaré xam nañ né li ngeen di dund sori na ak Touba xam nañ ne sori na ak Ndindi mais nag xam nañ ne sori na ak tali bi ak ni mu demee mais nag gis nañ ne courant bi baax na fi ñi ngi wax président de la république ne ñu jàppale ci courant bi ndox mi wax ngeen ko indi woon nañ fi ay tiwo dolliwaat nañ ko tey mais danañ ñëwaat dolliwaat leen parce que moo waraloon tey ma ne maay ñëwal sama bopp ba fii parce que yii passé yëpp da ngeen di daje di dem di vote ji te du ma ñëw mais tey kon maay ñëwal sama bopp Jembaare tey ñëw naa fi tey dinaa continuer di fi ñëw. sant Sadaga parce que moom mooy président comité électoral bii tey bépp activité yëngu-yëngu bu coalition bi di def mooy kilifa gi. di ko jaajëfal. ndax moom day am baat boo xam ne mag ñi dañ koy wax waaye dëgg la Sadaga. ci Benno Bokk Yaakaar APR amatul lu muy prouver tey nit ñi ñoo ko war a tàllal loxo mu mu mu tàllal la loxo nga jàpp ci pour mën a dem ndax it moom fi mu ne nii tey bu ñuy wax légitimité moom mooy parti bi bu yàlla defee nag Mouhamed di rakkam ñu dëkk bañ ko njëkkee dem seeti ma ànd ak Mouhamed lam wax loolu la jëf sama rakk nga maa ngi ci sa kanam maa ngi ci sa digg maa ngi ci sa ginnaaw te lii daf ko firndeel dafa am ñaari bis yoo xam ne dafa solonel

Benno Bok Yakar est très serein parce que nous, amuñu lu ñuy tiit ndax ndam li ñun dañ koo liggéey dañ ko jot l'opposition ñu ngi commencé di def vandalisme c'est ça c'est pas un mot grossier mais non, laa ko mën a waxee tey bu ñu dalee ci suñu président comité électoral nous nañ képp kuy responsable Nous nañ Mohamed Cissé nous nañ Galas Kaltom nous nañ Mimi Touré kon nag ñu ngi Mimi Touré au nom de la coalition, au nom du comité électoral, que l'agression subie par notre président du comité électoral, dañ top yoon ba yoon def li mu def euh di wax ni comme ni ko waxé euh yow amatoo loy prouvé ci yefi ndax APR mom sa APR la loolu mom vraiment ñepp nangul nañ la ko euh, di la masawu ci ñaari choona yi choona terrain bi parce que gis nañ la yaa ngi ci terrain bi. parce que yaa ngi nit doog a egg si nii añ añ sax defagoo leen ko yéen a ngi jullee tindoo di ajuma ñun ñi ngi jullee euh, ndar xaaxam euh, ajuma ça dire mooy gede ñor nañu lépp ci gede la loolu nag dam ci woo ñëpp li fait la force lu ñu booloo rek doole ji dana gën a bari di wax ne nag opposition bi nga xamante ni affaire u banditisme lañ yaakaar ni. ñu lay wax ne ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw te tey lañ ko gën a wax te après élection yi ci lay gën a firnde bi gën a leer te dinaa ko def bu soobee yàlla. la ma la dara du ca nag sama diggante moom sama xarit la dañuy wax guddi ak bëccëg heure yëpp la ñuy wax mais li mu wax ci élection yi nag euh, Mohamed il faut ñu teel a préparé wu soo li ñu am ci zone bi muy léede wat yi ñu fa am muy tundoo di ak Guédé dama bëgg suba. ñun dañ organisé wu man ak mom dañ toog ñu organisé wu def sécuriser wat bi kenn du fi nekk di perturber système bi loolu duñ ko nangu bu ne seen xel dal te ñun ñaar ñoy nekk seen kanam même auto ñoo koy bokk suba dimanche même auto ñoo koy machallah kenn du fi yëngu duñ bay kenn muy def lu du noonu lan na seen xel mais dañ leen di ñaan nak bu leen wo kenn ci xex bu leen xex bu leen wo ci xeex calmer leen mais nag du ñu nangu ñuy dal suñu kaw wala ñuy yàq Audi te loolu mooy seen programme yëg nañ ne fi mu nii indi nañ ay nit yu bari ci dëkk bi mais ñi ko euh, bàcc waxee ñi wax ministre intérieur ñoom ñu def li ñu war a def ñu def li ñu war a def parce que ñun amuñ ci leneen luñ def lu dem wote dem toog mais nag kenn du yàq suñuy wote wala nga ne suñuy nit buñ wote loolu tàmm nañ ko mais du am kon nag euh, maa ngi lay ñaanal di ñaanal coalition bi suñu borom defal ñu taw fee ñu gagné dimanche bi ñu gagné man koo feetu man koo taxaw tey yéene naa la ko ndax sama xarit te jàpp naa ne assemblée nationale gi ma def dix ans man na ma faa remplacer gëm naa ne mën na ma faa remplacer ah gëm naa ko wallahi dama koo gëm dama gëm ne mën na ma faa parce que fit waa fa doon doxee fayda jaa fa doon doxe organisation baa fa doon doxee ñeme gaa fa doon doxee gëm naa ne dana ko def moom bu fa nekkee Matar ne fa sama xel daal ak Cheikh Abdou Guèye Fatma ak Sëñ Galas ak soxna soxna madame Ndiaye Mariama Diallo jàmbaar la kon nag sëriñ bi maa ngi sa kanam suba bu sooba yàlla après bu élection yi dana jeex ci guddi gi danaa fexe da ngay fexe bu ñu paree rek ñu toog li ñu war def ñu boole système bi boole programme bi mu nekk benn yéen ñëpp ngeen xam ne bu ko boolee ngeen organiser wu ci organisation boobu ba nga xam bu ñu ko boolee dara du leen bett ba nga fu ñu jógee na ngeen xam ne yéen waa Benno Bokk Yaakaar ngeen ñee ngeen di jàkkaar loolu ñooy seen noon mais amul du ngeen noon seen diggante kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. ok eh, ma balaa ñu